marhaban léegi leer na nañ kilifa yi réew mi daal nañuy valider ñetteelu dose di maanaam ñetteelu ñàkk jëmale ko ci xeexu mbasum covid 19 gi bés bi le jour nañu ñeenteelu vague bi ak bi le variant mi ñuy duppee omicron tax na ba état wu sénégal jàpp na ñetteelu dose jëmale ko nag ci vaccin yi mun munta ñàkk ci mim réew fu mu toll nii te jii ci alxamis gi lañ ko fas yéene tàmbali bu ñu sukkandikoo ci directeur prévention di docteur El Hadj Mouhamadou Ndiaye laas yéene kaay nañu donte sax bi le variant omicron taxu koo soxor noonu waaye nag ni muy lawee ci réew mi doy na waar loola jàkkaarloo Soleil nañu ñetteelu ko dose di maanaam ñetteelu vaccin bi daal munta ñàkk faaw mu am ministère bu ñuy dënk wàllum wér-gu-yaram gi ak wàllum action sociale moo ko xamle ni ki démb professeur Moussa Seydi moom ci jamono jooje mu ngi artu ci biir yéene kaay L'Observateur di xamle ni antibiotique yu ñu jëfandikoo ngir xeex mbasum covid 19 gi bu ëppee rek mun naa jur ay lorange ak yi musiba ci wér-gu-yaramu askanu ya desandek mbasum covid 19 gi ak équipe nationale bu Sénégal L'Observateur mu ngi xamle ni Idrissa Gana Gueye ak Fodé Ballo Touré duñu mën a bokk ci jongante Sénégal ak Guinée Conakry mi ñu ñu jàpp ni ki ëllëg ci àjjuma jileya waral nag moo di doomi jàngoro ji moo leen dugg yéeni kaa groupe Futurs gi ne feebar bi ni mu songee bu Sénégal gi tax na bekku leen di tàggat seen entraîneur Alioune Cissé daal di amee jaaxle bu rëya record yéeni kaay daal di koy feelu ne ñu Kalidou Koulibaly moom dem na sax bay dànkaafu ne dafay gedd Coupe d'Afrique des Nations bi li waral bu ñu sukkandiko ci suñu naataango yi moo ne moom Kalidou Koulibaly ñu ko bëgg a xañ ci diggante mag Guinée Conakry ni ki ëllëg moo ko métti moom capitaine équipe nationale bu Sénégal yéen kay record ne staff technique bi démb lu ne daj nañ ko ngir dalalaat ak dëfalaat kii di Kalidou Koulibaly ci lu jëm ci campagne électorale gi tribune yéen kay mu ngi xamle fitna dëggantaan lañ ciy dund fi mu toll nii ci réew mi suñu naataango yi benn garde rapproché wu coalition gëm sa lañu daal agressé jam ko paak fitna gi yu UCS ñoo fa doon reyante ba ñu bëri fay jëlee ay gaañu gaañuwaa fii ci ndakaaru itam yéeni kaay bi mu nga xam le am nañu demoon songi këru Pape Diop candidat wu gis-gis ki ci ville ndakaaru laas yéeni kaay nañu candidat coalition Benno Bokk Yaakaar gi moom Abdoulaye Diouf Sarr daal dëkk ay adversaire am nee ku ko ñeme mu lay woo ab débat public ngir waxtaane seen ay programme jàngeen jëf